du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. tey bu ngeen seetee xex bi ñuy xeex moy mariage précoce mooy aziwaajul mubakkar sëy ca teel a day daf ko waxoon yonentam sant ko sey ci day dimbale góor day dimbale jigéen sëy ci islaam nag ndax amal na jigéen âge bu muy sëyee ba mu ne fii la jigéen war a toll sëy ah boo amee xaw ma ko ala kulli xaal jigéen mën nañ koo takk waxtu bu nekk waaye nag mënuñu koo jëriñoo waxtu bu nekk muy benn mbir tey bu ngeen seetloo coow li bëri yépp muy mariage précoce diggante aada ak diine diggante aada ak diine waaye dañ cee waroon teg ak pexet noonu sëy bu teel ñu bëri ñu koy saxal dañuy wax ni yaay anha ci ban aat lañ ko takkee six ans ci ban âge la ko yonent bi jël neuf ans léegi nag yi ñu ne jigéen waruñ koo maye lu dul moom dis huit ans loolu la loi yi tëral moom dix huit ans ma ne waaw baax na de waaye nag ndax yi mu war a àndal sàmm nañ ko ba pare loolu doo ko am dérive yi am ndax sàmm nañ te xam nañ ni jigéen ñu bari ak ni àdduna doxee jamono bi xale bi ku am 14 ans ñi ci ëpp waxuma ñëpp la waaye ñi ci ëpp ñu ngi fo ndax interdi nañ lañ leen foo boobu ndax tare nañ leen ko ndax xale dina am 12 ans dem place ñu ne ko non non interdit xaw ma moins de 18 bu ñëwee dañ ko naan fa marhaban biki yaa Zeynab ñëwal su mooyee ndax danañ ca topp déedéet allahumma lu dul rek ku jigéen ki boole wala ay mbokkam boole kon mbokk yi islam bañul mariage précoce waaye nag njaaloo précoce dama musiba la moom njaaloo précoce te mi ngi am te gis nga séy yàlla defu ci lu luy jëriñ nit dina la ci jox exemple bépp jigen bu yéex sëy à partir de 25 ans yi mi ngi sa kanam ay way sëñ bi yàlla mo bind nit ñi mo leen xam ala ya'lam man khalaq yàlla bind jigen wer wu nek muy indisposé lutax tax muy indisposé shay'un khalaqaha allah ala banati adam lu yàlla bind la ci ñoom jigéen ñi loolu nekk ak jigéen kañ la jigéen di tàmbalee indisposé à partir de 12 ans jëm 13 ans islam da nee na jigéen bu tàmbalee indisposé rek mën naa sëy loolu la islam gis tubaab bi nee na déedéet mënul sëy léegi nga toog ñu indi la njàng sawet buñ la waree mayee day jàng na am bal mu jàng ba pare mu dem université su demee université ndax kiy jàng ba jëm université tee nañ ko ba du mooy loolu kan moo am amul ñaareel bi ñu ubbil leen ay opportunité ku bëgg fo da nga fo ndax moyen yi ngay jaar ba fo xam nañ ko pilil yaa ngi fi comprimé yaa ngi fi fo maa ngi fi mu am benen fa bo xamni ken munu ko koo tere kenn muy masturbation li yàlla bindon ci yaw muy war di génn wer bu nek nga am sa ciobuk bop ak say soxlay bop ba naan lu ko te ñëw nek ci lolu ay wer dug 25 ans yi rek mo lay xaar fi borom ñëw nuyo ci assalamu alaykum wa rahmatullah comme yàlla noonu na nga teel a sëy nga ne ko doo sëy mbokk yi ma joxe exemple raakool boo def ci robine ba taal robine bi ndox mi nu muy def du day jàll bu ñu fasee raakool bi ndax dana jàll léeba ngoogu na ko jigéen ñi bàyyi xel ku ci yéex a sëy fibrom kese ngay am te fibrom nag garabu banaana la rey doon lay doon garabu banaana bu du am benn yoon bu nee cëpp fii beneen a ci wet bi suñ la nee nañ la opéré balaa ñu la opéré ñett féetewaat ci suuf wax yi xam nañ ko fibrom mag ñi rey doon lañ koy tuddee beneen bi am na lu toog sa kanam muy trompe yi bouché ñaata ngeen gis ci ay jàngkat yu jàng ba am ay diplôme teeluñu 25 ans 30 ans 33 ans demal day sey presque 3 4 semaines 5 semaines am jafe-jafe lan lay am absence des règles absence des règles laaj ko ndax réglam yi ba ko ko yàlla commencé bàyyee pour muy génn ndax yemoon na bàyyi ko muy dem na muy demee déedéet da ngay fekk daaw ko def beneen bi nga fekk nii kooku mun naa dem a dem ba gis nga li waroon a dund ci yaram bi dootut nay yi parce que jigéen yi ñuy diwoo nii baaxul de neexu la wax boo ko waxee utkatu xaalis yépp mere la mais ñu ngi diwoo lu baaxul di lekk lu baaxul di naan lu baaxul problème yi ñuy am dafay bari lool lool lool lool kon loolu bépp jigéen na bàyyi xel saa boo toogee ba benn ci dal la baal xel képp ku sëy ci sëy bu teel doo am fibrom loolu moom maa la ko garantil moom ku weddi nag bee boo nga wër ku ko mën a dindi indil ma keneen ku ko mën a dindi والله يالا دو وخ لوي لور نيت الا يعلم من خلق كي ورا سي از بامو ورا سي بوكو سي دو ام ترومب يي بوسي دوكو ام نيونا موي ام ابسانس دي ريغل دوكو ام نيونا موي امي فيبروم باسكو نيوم خام ناني في فيبروم دي نيك اك لي سي دي تيكي كون لولو نان لين كو بايي خيل بو باخا باخا باخ